lii mi ngi jóge ci Seexul Xadiim jëm ci buur ba Jolof Sàmba Lawbe Njaay sëriñ bi dafa musul ci seytaane sant suñ boroom daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ni lii mi ngi jóge ci jaamu yàlla bi nga xam ne doyloo na sëkk li ko boroomam defal muy Ahmadu Mbàkke jëm ci buur ba Jolof Sàmba Lawbe maa ngi lay nuyu bu baax te la jox sa wàccuwaay dila xamal ne ndaw li nga yabalon aksina na na ma say nuyo wax na ma yitne da ngay sakku ma bindal la labire go xamne di nga ci meuna waro lolo tax ma bindal li na nga xamne aduna àdduna du la jox lu lo xamne da ko nango ci say morom du jox say it lum nango ci yow manam bu tayé mu ànd ak yow bu suba mu won la ginaaw bu tayé mu reelo la bu suba mu jooyloo la ginnaaw noonu la demee nag na nga fexe ba bul waru ci ree yi ndax àdduna kat day wore te day naxe te foo ko gisee muy ree balaa yàgg rek mu soppi xar kanam kon loolu nanga ci bàyyi xel maa ngi lay digalit na nga góorgóorlu sa kem kàttan ci dimbale way néew doole yi ak way ñàkk yi te nga wan ginnaaw lépp loo xam ne ak tooñ la akuk jaay doole ndax kuy tooñ faw dana mujj rëccu te kuy jaay doole faaw dina am bis bul fàtte mukk ne nguur gi nga yor tey ak doole ji mu àndal yaa ngi ci jot ginnaaw bi ko àdduna fuqatee ci loxo yi ña ko yoroon ñoo xam ne ñii dañoo mujj faatu ñii dañoo folliku tey noonu nga ci jotee noonu képp nga koy ñàkkee faaw bis dina ñëw nga faatu wacc fi nguur gi mbaa nga folliku ñàkk nguur gi ginnaaw noonu la demee nag na nga góorgóorlu ci lépp loo xam ne dalay jeriñ aduna ak àllaaxira ndenkan lima la doon denk fi la yam ma dila jari. xamalit ne so jëfee li ma la wax yow kep lay jeriñ soko ko wut nak lepp lu la ci fekk ya ko tek sa bop ndenkan li serign bi denk buur bi nak mbokk yi lu am jeriñ lo xamne kep ku yor ak ndomba tank mo xam gu magla wala gu ndaw gu diine wala gu aada war nga ci xel ndax dina la amal njëriñ